Euh, yoo xam ne dellu si nañu ci kàdduy euh, Alioune Tine bu bu Africa Jom Center la mu wax mooy dafa gis benn euh, xaw ma nan la ko woowee pastéfisation wala daal en tout cas jàpp na ni mbirum Pastef dafa dafa jiitu ci gestion du pays le quotidien qui parle de note de lecture nee na on a l'impression qu'un état pastéfien se met en place di wax ci euh, Sonko qui a une surcharge de légitimité Diomaye mu am benn dette au plan politique ku nekk ci réewum Sénégal am nga sañ-sañu joxe sa xalaat ci anam ba nga ko bëggee ak na nga ko mënee pour artu parce que jàpp naa ni moom pour artu la waxee ne ni faw ñu xoolaat bu baax a baax nu ñuy doxalee ci wàllu gestion rawatina ci euh, ñu teg. ca leen teg ndax dafa jàpp ni dafa mbirum Pastef fi daf da cee ëpp mais euh, nguur kaka yore day set ñoom wóolu mu dénk leen ne leen nag dénk ba mu leen dénk du question wóolu leen rek waaye am ngeen compétence bi pour ma dénk leen ko la muy artu ci lu jëm ci premier ministre je pense que réponse bi génn na démb ci décret de répartition des services bi nga xamee ni de l'État bu ñu génnee bu ñu xoolee ku ci nekk lañ la dénk ci wàllu prérogative euh, mën naa jàpp ni peut-être euh, bu premier ministre moo ci gën a néew ci wàllu prérogative ci wàllu euh, la muy la mu war a la mu war a gérer xoolal présidence la mu am mais nañ wax ci li wàllu prérogative yooyu ak wàllu décret de répartition des services yi xam nga ñuy wax léegi ci mbirum leb xaalis leb xaalis mais dañoo waxoon ne ni dafa am ay kuréel yoo xam ne dañ leen fiy jële au conseil des collectivités territoriales au xawma lan euh, commission de nangam yooyu yëpp ñoo xam ne dañuy jël lépp jële ko fi pour mën xaalis boobu leen ba leen dugal ci seen i wàllu budget seen i wàllu feebar mu mën a dem ci leneen mais ba léegi yooyu mu ngi fi on me dira que non il faut que ñu dem assemblée nationale pour tëggaat ko parce que loi moo leen créé foog beneen loi bu leen fiy dindi d'accord mais comme génne nañ décret de répartition des services yooyu pour l'instant on n'a par le choix on est obligé de faire avec ces ces euh, ces institutions mais institutions yoo xamee ni tout le monde a toujours dénoncé caractère budgétivore bi ñu am lan moo tere léegi ñu mën ko dindi beneen coow am na fii euh, décret de répartition boobu mooy dañ wax ni le président génn ci conseil supérieur la magistrature mais am na sax moom ci biir cabinet moom ci biir institution yi mu war a jiite moom en tant que président de la république wala yi nga xam ne dafa aju ci présidence directement am na sax benn kuréel goo xam ne mbirum conseil supérieur de la magistrature lay lijjanti ça veut dire que génn gu ci est-ce que dañu war a xaar alors que ñu ngi doon waxtaan ci loolu. est-ce que dañu war a xaar ba ñu dem ci assemblée pour voter yenn loi yi avant ñuy mën a dindi loolu ça veut dire que décret de répartition bi ni mën nañoo njort ni dinañ amaat beneen décret de répartition beneen bu bees bu fekkee ni yenn structures yi dindi nañ ko wala am na yeneen réaménagement yoo xam ne am nañ ko euh, sur le plan fonctionnement notamment euh, ci euh, ci réew mi mais comme ku mel ni Alioune Tine ku mel ni Birahim Seck ak ñeneen ak ñeneen am nañu sañ-sañu artu pour dire attention réew lañu boo xamee ni dafa am pouvoir am opposition mais am contre pouvoir si biir contre pouvoir yooyu nag c'est pas qu'ils sont contre les pouvoirs mais dañuy taxaw pour mën a doon ay euh, euh, ay barrières yoo xam ne dañuy taxaw ne attention yaa ngi waaj a daanu wala fi nga jëmee baaxul yooyu les contre pouvoirs nag bokk na ci et la presse mais bokk na ci aussi la société civile mais une société civile également boo xamee ni c'est am nañu leneen lu ñu war a def seen biir parce que am na ay jamono société civile bi dañ leen taxé woon trop de nekkatuñu woon société civile am sax ñoo xamee ni civil boobu si la ñuy def ville ci à côté ville vile pour ne ni société civile boobu am na lu ñu war a jooyanti ci seen biir maintenant est-ce que du ñu war a defaraat lépp ba pare xool kan moo am sañ-sañu wax kan moo am sañ-sañu critiquer wala kan moo am sañ-sañu taxaw joxe benn position ci loo xamee ni nit ñi dañ la mën a déglu wala mën a jàpp ni li nga wax ni war nañ ci bàyyi xel on a vu hier ou avant-hier benn lettre boo xamee ni dafa am kuréel bu ko bind ne sax dañuy dem ca conseil constitutionnel ne ni président dafa démissionné de fait euh, muy président Bassirou Diomaye Faye parce que dafa jël lépp dénk ko Ousmane Sonko premier ministre ñeen ñoo ko wax mais xool leen ñi ko wax ba pare est-ce que ñi ko wax am nañu peut-être ci ñenn ñi crédibilité bu ñu mën a waxee lu mel noonu c'est une interrogation qui légitime tey Alioune Tine li mu wax ñenn ñi te diront que mais xanaa du Alioune mi moo àndoon ak ci ay jamono daanaka du xeex euh, euh, nuñ koy weete euh, nguur gi tey ànd ak opposition bi bu ñu naan ko ndax opposition nga bokk wala nguur nga bokk ak yeneen ak yeneen donc il faut que ñu tëggaat lu bari. ñun ñii di nekk ci télévision yeeg rajo yi di wax kan moo am sañ-sañ wax ak ci lan nga war a wax est-ce que war nga ko waxee na nga ko war a waxee loolu yëpp ay mbir la yoo xam ne faw ñu soppiwaat ko ci réewum Sénégal maintenant nag euh, man je me limite sur les faits décret de répartition des services bi wale na ni loolu ñuy wax gisuma ko amul parce que ci décret bi présidence la mu am premier ministre amu ko la mu sañ premier ministre sañu ko est-ce que premier ministre dafay sant président amul binduñu ko ci constitution binduñu ko fenn est-ce que parce que mooy leaderam sur le plan politique mën na ko sant loo xamee ni moom euh, daanaka day nekk ci ginnaawam euh, ci espace politique bi c'est une interrogation yooyu laaj yëpp nag moo tax ma ne communication c'est important nit ñi war a communiquer communiquer et gouvernement bi war na communiquer et une meilleure communication présidence war nañu communiquer mais une meilleure communication il y a beaucoup d'efforts yoo xamee ni présidence ñu ngi koy def actuellement ci lu jëm ci seen wàllu communication ndax euh, au moins xaw na gën a structuré ak euh, euh, Ousseynou Ly je pense Ousseynou Ly ma fa ne c'est un peu plus structuré par rapport ak activité wu président mais sur le plan global il faut qu'il puisse mieux parler au Sénégalais te wax leen langage boo xam ne dañ ko mën a euh, bi nga xam jàpp jàpp nañu ko ni moom.